بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوكي جوليتي بوكي سنغال بوكي جاسفرابي سن صبي سن بوكو سن خريط سن بوكو طالبي محمد الحبيب منصور موي نيو تاي دلو سوات سي تورو وي جورم سرينم خليفه بي سرين بابكر محمد بن منصور ak njaboot Seydi Hadj Malick yëpp li yëngu la ko yëngal ko doole lan moo yëngu mooy jumaa joo xam ni boobu ba léegi ñu ngi ci ànd ak yéen yéen jullit yëpp yéen sénégalais yëpp rawatina yéen waa diaspora bi xalifa bi sëriñ Babacar Mansour taxawal ko doon ci wuutu ay waajuram wuutu ci maamam defar ko ba fi mu toll ngeen di ci ànd ak ñun ku wax jumaa nag gis ni jumaa ji tollu ñu toll ci phase finale bi nekk ci décoration yi ñu bëgg la ngeen defoon ak xalifa bi defoon ko jaayante ko yàlla seen digganteeg moom seen digganteeg seen Hadj Malick ngeen daal di yokkaat seen loxo defaat lu raw loolu lii ñuy wax ñu di ko wax ci turu xalifa bi waaye nag di ko jaarale ci équipe bu suudee équipe bu jàmbaare équipe boo xam ne tabaarakallaahu gàcc ngalaama muy ñan mu jamaatu nuur at sunni yi nga xam ne tey xalifa bi moo tudd tur bi woo jox leen ko waaye nag ku fa gis la fa ne xam ni ñii ñu ko jox mat nañ ko sëkk ñu woote nag ci bés boo xam ni tabaarakallaahu mooy ban bés le 5 août 5 août fan lañ ko woote ci TFM TFM ànd cek télévision yu bare rawatina nag télévision kër gi mooy ñan mooy Asfiyahi ànd koog Malikiya ak ay télévision yeneen yoo xam ni ñoom ñëpp associé nañ ci dale ci rek site internet yépp nag nga xam ni réseaux sociaux yi tabaarakallahu boo leen limee sax mën nga des moom daal na ngeen yëg seen yëfu bopp la seen alal la yéen ko moom bés bi sëriñ bi nee na dafa bëgg ñëpp gis ci seen bopp amul kenn koo xam ni tey génne nañ la ci biir kenn ku ci nekk daal yëgal ni yow ak xalifa bi yow ak Tiwaawan yow ak diine ji yéen yéen a moom seen bés maa ngi woo képp koo xam ni jullit nga bokk ci réew mi di safoo yàlla ñi ngi lay woo ci bés boobu nga xam ni ñi ngi ciy invité ñëpp rawatina nag yéen ñi nga xam ni man maa tippoo ni man may seen ambassadeur man maay seen avocat di yéen waa diaspora bi maa ngi leen di tàllal loxo di leen sant ca bu njëkk ba ci turu xalifa bi ak turu xadara bi ak turu njaboot gi waaye di leen wax ni nag bii nag moo teewaat samedi ngoog dimanche ngoog altine ngoog waaye le 5 août bii bëgg naa lu ci nit doon def nga won ma ni ma tey la waalu gën a aay kon nag bokk yi bis ngoog xam ngeen ni ku gis jumaa ji fi mu toll xam ni ñi ca def woccuñu seen alal ndax à l'espace de ñaari at nga gis projet bu toll ni jumaa ji ñu toog ci phase finale yi xam ngeen ni dëgg-dëgg gàcce ngaalaama ñi ko jiite gàcce ngaalaama ñi ñu ko jox waaye gàcce ngaalaama xalifa bi ak ay rakkam yàlla nañu yàlla may ñu fekke bis bu ñu koy ubbee ànd koo xalifa bi ak ay rakkam ak jullitu yàlla yépp kon ñi ngi sant waa jamaatu nuur ci xéewal ji waaye di ci ànd ak sunu rakk Abdoul Aziz Ndiaye di ko ñaanal yàlla ci taxawaayam ci bés bu nekk mu xool lan moo gën a rafet lan moo gën a baax ci Tiwaawan mu di ko sonn di ko def yal yàlla guddal fanam mu ànd ceeg eh, équipe bu baax boobu ci njiitalu suñu frère suñu soppe suñu xarit Mouhamadul Makhtar Cissé ak équipe bu suude bi mu àndal ak sunu wayjur yi nga xam ne moo leen di wettali nekk ci seen biir sunu baay sunu nijaay maam Alpha Sy ma Yoro si ñu koy ñaanal yàlla moom itam mu yàgg wuto magam yu baax yooyu nekk fa ak ñi mu fa nekkal ñëpp wasalaamualeykum wa